effectivement visite u président Ousmane Sonko ci Serigne toxa dafa bari manipilation parce que ba ci vidéo bi ñu génne sax mu jàll ci site yi euh, dañ ko dagg dafa am luñ ci wane am luñ ci nëbb te xam loolu dafa dangereux ci benn jataay wala ci benn wax xaw ma kan moo def loolu xawma ban intérêt la ci am ak lan la ci jublu waaye fi sëriñ bi commencé génnul te dafa am ñetti éléments yu ci am yu jóge ci sëriñ bi jëm ci Ousmane Sonko yoo xam ne c'est ce sont des éléments extrêmement important et utiles même ci président Ousmane Sonko bi ci njëkk mooy sëriñ bi daf ko njëkk ne ko ñu ngi koy sant ndax bi mu ko nee bàyyil rek dafa teg fi suuf loolu kay ki lay sant ngir daf la wax rek nga topp ndigalam ko kay mi ngi junju sax xëy na koo xam ne bi mu ko nee tegal tegul waaye moom def ko ne yow bi ma nee tegal ci suuf rek da teg ci suuf foofu la sëriñ bi commencé ak moom ci toppaat mooy euh, sëriñ bi ne ko li may wax ak yow ñëpp laa koy wax ndax ki am nguur la commencé luy def nguuram rek lay téye kon Ousmane sonk koy amagul nguur gu muy téye bi toppaat ne ko ñiy wut nguur it. lu leen may nguur rek la ñuy def loolu concerne Ousmane Sonko concerne ku ku dul moom concerne man mii wax ak yéen bëgg nguur man tam wante li sëriñ bi wax nga xam ne moom lañ gën a teg baaraam mooy ku rey nit ku nekk wala nga participer ci lu rey nit yow ku rey yéen a yam waaye loolu kay lislaam la loolu kay alxuraan la d'abord te képp ku rey nit ku nekk ab jullit te tey ko sawara nga jëm wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannamu xaalidan fiihaa wa ghadiba Allaahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaaban alxuraan waaye nag ñi ñu rey ñëpp ñu doon xeex ngir démocratie lañ ñu doon ñenn ñi pour président Ousmane Sonko ñenn ñi ngir démocratie ñenn ñi ngir liberté kon kay déchargé na Ousmane Sonko parce que ñi ñi ëpp waa kër Ousmane Sonko lañ xanaa kay Ousmane Sonko amul intérêt pour amul intérêt pour rey waa këram. manifestant yi yoruñu woon ay ngànnaay ngir rey ñi des kon kay am ñu sëñ bi kon kay ñi rey la sëñ bi wax ñi rey ñan la pourquoi ñu war a wax Ousmane Sonko mi nga xam ne moo war a nekk victime ndax ñu doon manifester pour liberté ak pour moom ak pour démocratie ñoom la ñu ba pare te ñooñu cause ñi ci ëpp cause Ousmane Sonko lañ doon xeex ñu rey leen ba noppi ñu bëgg gis ci a biir loolu Ousmane Sonko pourquoi ça. bi ci toppaat dafa am benn élément bu ma ci dégg sëriñ bi wax ko te ma solo mooy yow taalibe nga ça veut dire que sëñ bi mi ngi assumer nangu taalibe Ousmane Sonko mais ñi ëpp ci ñu ma dégg ñuy wax ci côté pouvoir benn discours la ñuy avancé mooy Ousmane Sonko salafiste la soutenu par les salafistes amul benn morit bu sëriñ bi nangu sag morit bu ñuy tedd salafiste loolu xëy kon sëriñ bi moo ko weddil boppam. ndax moo ne kii sama taalibe la bu sëñ bi nangoo taalibe ko Ousmane Sonko rek nekkatul salafiste que ça soit clair et net donc je pense très clairement que à au-delà de la manipulation au-delà gu euh, ñi jàkkaar lool ni ñu mënee loolu ak nekk ci derrière presse pour di pour di manifeste pour di pour di pour di génnee ay image ak dagg ak collé lii mooy dëgg donc c'est ça la réalité des faits kon en aucun cas nuñ ci mën a waxee ne sëriñ bi dafa recadré wala dafa humilier wala dafa dafa dafa dafa jàmbara Ousmane Sonko amu ci